jërëgeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun fii ci Info 7 TV tàmm ko ba di fi taatane xabaar ñu daal di wax nag xabaar bi le soxal fële ca bitim réew foofu ca réewum càdd nag la ñuy wutali càdd googee nag démb ñu ngi fa doon nemmeeku ay mbir yi fa xew ñu njortoon ne lii di wàllum coup d'état moo fa wante lu nu men demeewul noonu foofa nag ca réewum càdd buñ sukkandikoo ca xabaar kii di njiit réew ma nga xam ne moo yore nag liñ naan gouvernement de transition ba di Mohamed Idriss Déby Itno ne nañ daal moo joxeeb ndigal ñu daal di faat ki nga xamante ni moo di Yaya Dillo moom nag nekkoon ab opposant foofu ca réewum càdd ginnaaw bi ñu ko tuumaalee ne daal ñii di ay farandoom danoo daal di attaqué li nga xamante ni moo di service de renseignement ba ki nga xam ne it moo dirigé jamono ji gouvernement ba nekkoon opposant di Sixé Masara moom daal bu ñu sukkandikoo ci xabaar daal mu ngay rafetlu lu jëm ci fa liggéey bi nga xam ne way takk der yi ñu ngi koy liggéey ndax nag ñii di way takk der yooyu daal la ñu xam le ne ñoo faat opposant bi di Yaya Dillo moom moomee nag nga xam ne faatu na Diéya Dilo ci ay jamono nekkoon na fa ministère de mine ak énergie foofu ci réewum Tchad bu ñu fàttalee loolu nag mu nga amoon ca mille 2008 jàpp mars 2009 juróom benn weer képp lu fa daal di amal ginnaaw lu nu mel nag moom moomee nag di Yaya Dilo si ñu fàttale itam ak euh, juddum mu ngi feeñ jamono dix 18 décembre 1974 la daal di feeñ jamono moom nag ñu faat ko ni ki démb 28 février 2024 moom nag di ab nit koo xam ne homme politique la dëkk fale sa Tchad yor nationalité bu Tchad wante itam nekk koo xam ne jullit la woon nekk koo xam ne it bokk na ci moo jiitoon parti bi nga xam ne mooy euh, parti socialiste sans frontière ci denduk Afrique gile moom moome nag daal nañ ko faat moom moome di Yaya Dillo ginnaaw bi nga xam ne itam bu nu fàttalee jamono coronavirus gi ba mu fi ñëwee moom moome bokk na si ñu doon xelal njiit réew mi wante it fàttali gi moom moomee ci ay jamono fekkoon nañ ko ca këram tirante fa ak moom ay soox loolu nag ba way juróomu jigéen si la ñàkke woon bakkanam gannaaw lu nu mel nag ñii di armée ba daal danoo xamoon ne dañ koo songu ñoom ñooñe ñu daal di riposté wu nag mu nga amoon ca atum mille vingt 2021 ginnaaw go nag tey jile démb daal lañ ko fekk ci këram daal di ko faat moom moome di Yaya Dillo faat googe nag li ñu xamle mooy daal dafa am yenn ci ay xabaar yoo xam ne daal moom lañ koy tuumaal ne ñoom moo ko daal di def moom mii di Yaya eh, Dillo nekkoon ab opposant foofa ca réewum Tchad kon nag daal di nañ koo faat ginnaaw bi nga xam ne arme bi moo daal di def lu nu mel procureur ba sax ni ki sànq amal na way janoog taskatu xabaar yi daal di dëggal lu nu mel foofa ci réewum Tchad nag jamono ji ay mbir a nga fay xew ndax nag eh, lii di capital bu réew mi moom jamono ji way takk der yaa ngi ko fees ngir di way di saytu lii di kaaraangeeg boobu lépp dëkk mu mel ni foofu ca réewum Caad nag jamono ji moom mbir ya doy na waar lool ndax nag kii di opposant boobee di Yaya Dillo moom nag daal di nañ koo faat bu ñu fàttalee fan yi ñu génn rek daal di woon nañ fay yëgle ne am na élection yoo xam ne ñu ngi ko fas yéene amal mois de mai 2024 wante lu nu mel daal bi ñu ko yëglee ñaari fan lañ ci teg ñu daal di gis ay jàppante yoo xam ne am na fa am na ñu bëri ñoo xam ne jamono ji teg nañ leen loxo waaye kii nga xam ne nag moo di Yaya Dillo moom daal dinañ ko faat am na ñeneen itam ñu xam ne ne daal dinañ leen faat foofa ca réewum Tchad muy mbir yoo xamante ni mu nga amee foofu sa Tchad kon xabaar boobee dinañ wéyandi di ko toppandi ba xam fan la wanante mu jëkki gëtam foofu ca réewum càdd muy faatu ki nga xam ne moo nekkoon opposant bu ràññeeku foofa di Yaya dilo am lu tollook ñeent fukki at ak juróom-ñeent moom moome nag jiitoon ab parti politique muy parti bile di parti socialiste sans frontière foofu ci réewum Tchad kon xabaar bi dinañ ci dellu siwaat ci yeneen i jamono ni mu gën a yaatoo jërë ngeen jëf way leen di ñu topp ci Info 7 TV di abonné di bës lii di cloche de notification bi lépp lu ñu dugal ci ay xabaar ngeen mën koo jot